urgence fu ngeen ko déggatee seen xel dem ci union des républicains pour la construction et l'émergence du Sénégal lu ne fang kenn du ko jeex ñoo ko waxal seen bopp président Macky Sall la ñu xam moom la ñu bëgg moom la ñu doyloo te moom la ñuy àndal bëggee gi fer moo waral ñu fas yéene dajale mbooleem kuy jàppale njiitu réew mi ci diwaanu Touba Mbàkke ak li ko wër ngir ñu boole seen doole def ko muy benn falaat Macky Sall 2019 ci premier tour bi kuréel gii di urgence ci njiital seen président bu baax bi patriote bi républicain bi Moussa Seck urgence urgence ànd ak mboole membre yu urgence di amal ab forum socio communautaire bu am solo fukki fan ba fukki fan ak ñaar ci weeru mai atum 2018 ca Mbacké muy doon sous le patronage de son excellence monsieur Macky Sall président de la république bu Sénégal sous la présidence effective de monsieur Mahammed Boun Abdallah Dionne premier ministre bu Sénégal sous le parrainage de monsieur Aly Ngouille Ndiaye ministre de l'intérieur monsieur Moustapha Diakhaté ministre chef de cabinet du président de la république monsieur Pathé Diakhaté responsable politique bu mag bi ci Touba ak Mbacké monsieur Abdoulahad Ka maire bu Touba ak soxna maam say Mbàkke responsable politique ca Touba dana fa am ñaari fan yoo xam ne seet askan wi seen wàllu wér-gu-yaram ci lu ñu dul fay dara danañu fa inscrire it lu mat junni njaboot ci couverture maladie universelle danañ fa amal ay audience foraine ngir xale yi nga xam ne amuñu kayitu juddu ñu mën leen ko wutal dem ci daara yi ak ñi nga xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw baaxee leen ndimbal jàppale borom kër yi ak i enveloppe yu am solo président Macky Sall moo ne année sociale waa urgence ne kenn du leen ci jiitu tëjtel forum bi nag samedi lay doon fukki fan ñaar ci weeru mai atum 2018 à partir de 16h ca théâtre verdure bu Mbàkke waa urgence nee nañu lu ne fang kenn du ko jeex du 10 au 12 mai 2018 daje bi Mbàkke la bilaay